jomaay musul taxaw ne fal leen ma amul benn vidéo wala ojo wala rajo boo gis ni jomaay taxaw ne fal leen ma Sonko moo ni jox leen ma réew mi ma jox ko jomaay noonu la mbir mi demee Sonko moo laaj jox jomaay kon loolu il faut mu leer ndax ñi votel jomaay yëpp Sonko lañu votel ndax tey bu fekkente ni Sonko dafa ne dénk leen ma ma dénk jomaay kon ñun dafa mel ni ñun Sonko lañ dénk. yow mi may seetaan yow laay posé question bi ma misaal la tey bu la nit dénkoon un million par exemple yow nga jël un million boobu dénk ko man ñu ànd di dox ay agresseur karñu pour nangu un million bi léegi yow bu ñu nangoo un million bi ci man borom un million yow mi ma ko dénk yow mii lay laaj un million duma ko laaj man waa léegi bu demee noonu yow da ngay taxaw xeex ba un million yi du dem ndax un million yi bu demee après borom yow mii la koy laaj mbir mi noonu la demee nag kon Sonko bu laajee ne jox leen ma ma jox jomaay tey réew mi bu ko saay-saay yi yàqee wala réew mi bu ñu seetaanee ba saay-saay yi yàqu ko ñun ñu dénkoon son ñun ñu dénkoon ñun ñu dénkoon ñun ñu ñu dénkoon jo ñun ñu dénkoon Sonko sonko lañuy laaj sonko moñu amel ak bu boba Lol tax sonko nak lol la xam ba tay du nangu rew mi mu jël jox ko jomay muy taxaw di sétan jomay say say di ko yak lol du musa am misal baa ngi noonu beneen bi ci top moy patriote il faut que ñu jéem a relation politique ak relation spirituelle lol il faut ñu jëm ko parce que tay ñun bu fekkante ñu tay ñun patriote sunu sëriñ ci nga xamanteni ñoo ñooñu lañ jébalu ku ci wax wax bo xamanteni du wax bu mu wara wax wala wax bu déraper la bu nit ñi taxawé di wax nga genn jëlal ko par dal di bëgg sax xass sonko lool yaakar na ni warul démé noonu parce que li tax moy ñun ak pure relation politique lañu andé won bala dara xew té relation politique foko déggé moy ay intérêt daf ci am tay ki nga andal te yalla tax tay ki nga serigne bi nga andal te yalla tax koku bo toge te seti woko du taxaw mukk di ko wax parce que dafa àndoon na yow te yalla tax misal bi moy Serigne Cheikh Thioro Serigne Serigne Cheikh saliw koku ñepp xam nañu dafa ànd ak Sonko te yalla tax ndax soxlawul daraay politique koku kon Sonko bu togon ay accès diw ko du genn fenn di taxaw ay micro nan Sonko lu tax seet muy benen benen bi moy ñun chantage la la baatu chantage baatu chantage foo ko déggee mooy intérêt personnel dafa taxaw intérêt dafa taxaw foofu maanaam lu intérêt amul chantage du si am dañuy waxante dëgg kon le mot chantage foo ko déggee mooy intérêt personnel dafa taxaw léegi beneen bi mooy patriote yi yuy jug di dal ci kaw Sonko naan Sonko dafa war a seeti sëriñ bi dafa war a seeti sëriñ bi waaye léegi lan moo leen wóor ni yéen Sonko jéemu ko seeti ak lan moo leen lan moo lan moo leen est-ce que xam ngeen lan moo tax Sonko demul seetiw ko Sonko sëgëm ñi nga xamante ni bokkuñu Pastef defaluñ ko dara day jug sol dàllam dem di leen seeti teg ci di leen jàppale asamala koo xamante ni nee na àndoon naag Sonko même bu dul même même bu dee benn fan ci mbiru politique. kon il faut que ñu xool lan moo waral source bi man de man man Sonko bu juumoon juum bi gën a mag digganteem ak sama sëriñ billahi du ma ŋaañu Sonko parce que damay xam ni Sonko da koy def de bonne foi te dama xam ni. Sonko taxawaay bii mu taxaw mu am ci réew mi ak li ko réew mi jaral ak sacrifice yi ak li mu def ndax réew mi ak li ma dig ndax réew mi kooku adduna warul tax wala mindeef warul tax ba may wëlbatiku man di dal ci kawam buy beneen loolu il faut que ñu jëm ko ràññee tamit beneen bi si topp mooy tey su fekkente ni dañoo jëm cay élection ñu fekk àndoon ndañ lu yàgg ñu jëm ci ay élection léegi ñu ne ku nekk na demal boppam waaw ku nekk bu demalee boppam ba natt boppam léegi bu fekkente ne dafa waroon am yeneen échéance yu ñëw ki am doole xam ni moom mën na demal boppam mais day jéem a demal boppam tamit loolu dina ci feeñ mbir politique day dugg si ba tey il faut que ñu nangu ko léegi ku jàpp ni yow la taxoon nga am li nga am ka la ko joxoon tey bu demee demu boppam doo ko am kon foofu tamit beneen problème day day day day day day day day ñëw taxaw kon li ma bëgg ñu xam ko mooy Sonko xam na fi mu jëm Sonko lu mu def xam na lan moo tax mu def ko loolu il faut que ñu bàyyi xel na ñu bàyyi Sonko maanaam mu doxal beneen bi mooy Sonko amul kenn ku ko sauver ku dul jeunes yi dem dee ci mbedd bi loolu pour mu leer tamit ndax bi ñuy nekk ci gatse gatse bi amul benn parti politique nii benn sëriñ bu jox ndigal ay taalibe ne leen dem leen ngeen xeex ci mbedd bi ñi gëm projet bi donte bokk nañ ci ay këru diina ñi gëm projet bi Sonko jaral leen ñu génn joxe seen bakkan ci mbedd bi ñooñu ñoo sauvé ki nga xamante ni mooy le président Ousmane Sonko ginnaaw yàlla ak yonante bi kon loolu mooy li am kon nañu focus vers l'essentiel te xam ni ñun dafa am loo xamante ni moo nekk suñu kanam te ay défis yu ñu war a relever la mooy defar réew mi gañ a assemblée bi asalaamaaleykum